sëriñ bi noo ngi lay nuyu ca di la siyaare ci bis bu tedd bii bis bii nga xam ne lépp lu yoonu murit am nañ xam ne bis bii mooy li ko waral ndax su bis bi amutoon jàpp naa ne néew ma du am waaye buy am dana ame feneen batale bi nga xam ne Serigne Touba defoon na ko sa way jur wa Cheikh Mouhamadul Moustapha mat gam ca def ba defal ko lam bëggoon ba andi ko tëral ko fii ci jumaa ji moo tax lépp lu xew ci yoon wi mën a xew jàpp naa ne loole bu ca càggante amoon ba échec am ca néewu du xew waaye feneen lay xewe kon sëriñ bi ñoo lay siyaar bu baax ci bis bu tedd bii nga xam ne yaakaar yu baree bari da cee daje ndax li ci xew ak barag bii mu xewee ak jëmm ji ñu jàkkaar lool jàpp naa ne day lépp luñ ci sàkku ci yow soo ñu ko ñaanalee suñ borom danañu ko defal mbooloo mi nag wax nañ ne ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax rawatina démb bi ma dikkee nga baamtul ma ko sa bopp sàkkul ma ko sa bopp ne ma bëgg naa yéen dong yi ngeen di ma ñaanal bi ma demee ba wax leen ko am na ci ñoon dal nañ koy def aw sas moom fas nañ yéen a seen ngir gi dund suba ak ngoon fu ñu toll di la ko defal sa sët bi sa taalube ba jëwriñu sëriñ Mbàkke soxna loo Cheikh Moustapha Mohamed nee na xeewale sëñ Touba yaa ngi nii alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki taalube yi sëriñ Ahmadul Muxtaar mi fi nekk ci njaboot kanamu njabootu seex Mouhamadul Moustapha gi mooy jottali ay kàddu jox nu ci ndigal nu war leen koo jottali ñu may nu tuuti rek ak dal ba kadduy sëriñ bi mën a àgg li ci jiitu mooy mu ngi sant mbooleem njabootam gi nga xam ni moo leen jiite ci kër sëriñ Mouhamadul Moustapha di ci jiital nag jawriñam ji nga xam ni mooy sëriñ Cheikh Mbacke Madina di ci teg. sëriñ Abdourahman xalifab sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde ma waaye li ci tegit mbooleem njabootug sëriñ Modou Moustapha gépp baywul kenn di sant nag bu baax ñi nga xam ni ñoo njabootu kër gi ne ci gannaawam gis na seen taxawaay ak seen pasteef mat na sëkk waaye rawatina nag ki tax ndaje mii am muy kan sëriñ Mbacke Mouhamed mi xalaatoon lii di ko def defin wu rafet ba bàyyi koo fi doomam ju baax jii dib taawam di sëriñ Moustapha Mouhamed jël ko taxaw ci taxawaay bu mat sëkk defe ko noo xam ni na ko wajuram a doon defee gën na koo rafetal gën koo yaatal gën koo baaxal sëriñ Ahmadou Mokhtar nee na mu ngi sant sëriñ Moustapha Mouhamed mu ngi koy gërëm ci ay taxawaay mag pëstéefam ak ni nga xam ne la nekkee ci wetam di ko déglu ba lépp lu bàyyi ko ci moom rek mu jëfe ko na ko bëggee yéen ñii di dongo yi mu yebal leen ngeen di taxawu liggéey bii sëñ bi nee na mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di ñaanal mu wax nag ni mi ngi leen di dénk la wajuram wa daan dénkaani nu sax ci jaamu sunu borom te nangoo liggéey te sax ci ak jub ku bëgg a àjjana da ngay nangoo jaamu yàlla ku bëgg a mucc dangay jub ku bëgg nag teraanga da ngay nangoo liggéey nee na mi ngi leen dénk ñetti yooñu ndax ab taalube daa war a nangoo liggéey nangoo jaamu yàlla sax ci jub bu ko defee la mu bëgg ci sëriñ bi dana ko am mi ngi leen di dénk ngeen boole seen bopp nekk benn yéeneen te jàmm ku tane sa morom nga dimbali ko ngir yàlla ku ne li nga def sa bopp nga def ko sa moroom looy bañal sa bopp nga bañal ko sa morom sëñ bi nee na gannaaw loolu mi ngi leen di xamal ni tey jii bés màgg la ci moom. ndax bu amul woon lii nu am tey duñ ko am ndax moo ko borom ko waxaloon boppam ni sëñ Modou Moustapha boo fexee bu yóbbu ma Touba te xaddamul lépp lu ngeen sumb danaa ko àggale bu amul lu ngeen am ne leen doy kon Cheikh Moustapha mboolem ko yaakaar sëñ Touba war nga koo ameel ak cant war nga koo ameel tamit ñaan ndax lii mu nu defal tey bu du woon ak moom tey duñ am lii nu am kon sëñ Ahmadou Mokhtar mii toog toogal ko fi toogaay bu rafet bu mat sëkk di kilifa gu mat sëkk. woyof lool njabootam gépp di ko sant njabootam gépp di ko gërëm ba mu toogalee sëñ Modou Sa ba bisub tey kenn mësu koo gis ci luñ koy yedde mbaa luñ koy xeebe léppam sëñ Tuubaa la ko jox léppam ak taalu bi la moo tax muy jiital ak santam ci sëñ sëriñ Mouhamadul Muntaxa mi fi nekkal sëriñ Touba doon ab sëriñam di magam mi ngi koy sant di ko gërëm te di ko ñaanal di ko déglu kon sëñ bi nee na mi ngi leen di sant yéen ñu fi teew ñëpp waaye da sant kilifa yi bokk ci kër gi ñëpp bàyyiwul ab seex bàyyiwul ab taalube bàyyiwul doom bàyyiwul ab sëtam mboolem njabootu sëñ Mor Moussa gi rek sëñ bi nee na mi ngi leen sant leen gërëm di ñaan yàlla nag ñu nu fi teewee ñaan na borom ci bar ki tax ñu def bis bi nu dajewaat fi nag ni sii déwén kenn bañ a manqué ku fi indi aajo na faju ku fi indi jàngoro na wér képp ku fi ñëw nag yàlla na yàlla faj sa aajo àddina ak alaaxira sëñ bi nee na jërë ngeen jëf sant xel na xolam sedd na xelam na jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf taar ba newoon ca moo nekk it ci mii tafaa wér gu newoon ca Moustapha gis nañ ko it ci mii itam Cheikh Moustapha mosula war telum la wax loola la nar moom lum la dig faye ko bar kenn mosu koo gis mu bangam